salaamaaleykum chers téléspectateurs Kër Ndanane TV yi amaan mbégte contentement di leen teewal fii si seen plateau Coffee Show du sa vendredi ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damay sant di gërëm samay ñaari way ji di nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aada yi su ko defee damay doxantu ba ci hôpitaux yi daal di seet malade yi ñaanal leen suñu borom delloo si leen seen kër si jàmm ak salaam ñu nekk prison yi aussi di ñaanal yàlla leen suñu comme ni ma koy defee saa su nekk rek damay am mbégte contentement di bokk ak plateau bi sama naataangoo balaa may àgg ci loolu damay wax euh, ci koor comme dugg ñu ci weeru koor gi lañ dugg dugg mooy premier jour koor gi di ñaana su di ñaan yàlla suñu borom koor gi yàlla ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi alamin suñu borom nangu ñu si jaamu yàlla yépp jéggal suñu bàkkaar te yàlla yombalal borom kër yi dépense yombalal leen ndogu Euh, ñëpp yombalal leen ko incha allah rabbi comme ni ma koy waxee saa su nekk rek damay am mbégte contentement di ba ko plaat sama naataango yi comme nee naa leen ba léegi ñun ci mois des femmes muy euh, mois de mars mois nekk nee naa leen fii si Café Show mois des femmes képp kuy jigéen di nekk maanaam bu n'importe a jigéen nag comme ni ma ko waxee jàmbaarte jigéen xalante jigéen pour mu nekk la ñuy jëm indi leen o tegal leen ko si Kër Ndanane TV su ko defee damay bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Alassane le grand chroniqueur de Keur Ndanane TV suñu kër bu naaj. Mm-hmm. macha allah la di la nuyu di la jaax di la nuyu mbokk téléspectateur Keur la ziar di la jaajëfal di leen wax ni yéen a ngi seen émission Café plus Keur Ndanane TV la chaîne de l' élégance la di nuyu sama xarit Oustaz nuyu suñu invité bu baax bi Ndeye euh, Marie Sam. jóge ba Sangalkam di nuyu tamit sama jigéen ko sargalaale di ko maa ngi sant bi rafet na bu baax a baax <laughs> di nuyu ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi seetaan eh, di wax si ci weeru koor bi ñu dugg mm-hmm. yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp nga xamante ni moom ko ci bu mhm. ay déwén yu bëree bëri. amiin amiin eh, yàlla defal ñu jàmm Sénégal ak ci bi yëpp. daal la amoon damay. di macha allah macha allah am na solo yow Alassane mhm. nee naa la yow dañuy am mbégte contentement saa su ne di bokk ak plateau Café Show. Mhm. ndax li ngay indi def di ko bi askan bi dañ koy macha allah. muy actualité dinañ si ñëw léegi allah su defee damay bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Ndeye Fatou. Ndeye Fatou sama sama anti stress moom macha allah moom dafa may reetaan lool moom moom moom moom macha allah su ma ko gisee rek automatiquement dafa may reetaan lool naka ko seetoo. jërëjëf waay ci Leewtoo TV. tey mu ñëwoon aussi teewal bi fii tey waa euh, Ndeye Fatou maa ngi lay euh, waaw ñu na. merci beaucoup ñu rek <laughs> def ñi nga defoon toppandoo tuuti rek. kontaan naa xam nga roy lu baax moom dafa baax. dëgg la kontaan euh, di am bëgg te kontaan encore di nuyu téléspectateur Kër Ndaanaan TV. di leen jox seen wàccuwaay bu baax di leen ziar di leen baalu aas ci weeru koor bi ñu nekk nii. di ñaan yàlla nangul ñu suñu woor nangul ñu suñu ay jaamu yàlla lépp loo xam ne daf ko fekk ci ñun muy tilim tilim yàlla na ko weeru koor yi faxasaale mu dem ci barke Seydina Mohamed leen jaajëfal saa su nekk rek euh, di am mbégte fegoox yow jotu sa émission Café Plus euh, di la ci jaajëfal bu baax ci dalal bi nga ma dalal tey euh, comme ni nga waxee rek mbégte la rek saa su ne di nuyu Marie mm-hmm. Marie ñu ngi nuyu bu baax di la dalal fii ci ëttu ndaanaan yi ëttu euh, ndaanaan yi mooy faral di dajale fu ndaanaan nekk ci àdduna bi rek mu indi la teg la fii ci plateau ndaanaan yi di ziar suñu oustaz ndaanaan bu mag bi ak euh, ala Alassane Alassane le grand ndaanaan ñu ngi lay ziar bu baax fii si kër ndaanaan TV jatu ba ci kanam. waaw jërëjëf su ko defee Ndeye Fatou ñu ngi lay jaajëfal bu baax nee naa yow tamit damay am mbégte contentement chaque fois di bokk ak plateau bi macha ndax dafay am solo di bokk ak plateau su ko defee nga xamante ne moom allah ñu suñu oustaz oustaz euh, Mouhamed Kaba Sissoko macha allah moom nee naa leen damay am mbégte contentement di bokk ak moom plateau bi ndax moom ay ay ay idéem macha allah ay ay ci maanaam dañuy pousse si jaamu yàlla bi. Hmm. tey moom xam naa lu yow oustaz ma bàyyi la ñu nuyoo. alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala xayri xalqillahi wal mursalin sayyidina muhammad rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamaaleykum jigéen waxee sista jatu wala sunu yaay nga xam ni dañu wax naan déwéniti leen fekke leen déwén baal leen ak baal nañ leen waaye leen ko defati eh, yéen yàlla boole baal eh, may nañu fekk kay déwéni déwén di am mbégte bu baax eh, teewaat fii ci seen plateau te Show plus sama nijaay tonton Alassane moom sama nijaay la ndax tabarakallahu sama yaay sant ba kon ko sant ba tey góor da nekk sama nijaay mm-hmm. bu dee jigéen ma nekk sama tànt mm-hmm. waaye nuyu bu baax mboolem umma islamique yëpp di leen déwénati ci mm-hmm. weeru màgg wu sell yu ñu nekk di nuyu Ndeye Fatou mm-hmm. gis naa ko mu am lu mu def léegi ci am sant waaye xaaral ma noppi rek seen naa ko waaye ma noppi rek suturaal ko mu sunu invité ci tabarakallah ñaanal ko yàlla defal ko jàmm alhamdulilah sax ma jàmm te ni nga ñëwee tamit am na solo macha allah su ko defee nee leen ba tey fii Kër Ndaanaan TV muy la chaîne de l'élégance di kër kër ndaanaan yi aussi comme ni ko ci Ndeye Fatou waxee nee leen fii kuy ndaanaan fii képp koo maanaam yaa ngi yëngatu comme mois des femmes la ñu nekk leen ko waxee rek femme patente yi yëngatu jigéen xarante jigéen jàmbaar ci jigéen moom laay tegal leen ko fii ci table yi tene dama am invité spécial boo xamante ne moom laay di présenté mu tudd Sam muy chef d' en même temps bi conseiller municipal jógee fële fii tey ñu ci lépp lu jëm euh, bi mu nekk la ñuy waxtaane euh, maa ngi lay Ndeye Marie maa ngi lay nuyu di euh, ah, maa ngi lay fay soxna Jatu maa ngi lay ziare maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi yaa oustaz Alassane ak Ndeye Fatou maa ngi nuyu aussi ñëpp ñu ñuy seetaan ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew di profité ci ci koor gi di ndokkale bépp jullit mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla may ñu kàttan ak wér bu ñu mën a wooree weer bi ba mu jeex te may ñu ci ay xéewal yoo xam ne mm-hmm. suñu wooree ba ngoon dinañ ko mën a xéewloo mu mm-hmm. dal ci suñuy biir di nuyu aussi <clears throat> sama coordonnateur mooy Adama Sow euh, bu Pastef Sangalkam di nuyu le maire muy Alpha Bokhar Xuma di sama collègue conseil ak euh, sama famille patriote Pastef Sangalkam di nuyu waa Sangalkam yëpp di nuyu Sénégal aussi di ñaanal suñu président Ousmane Sonko yàlla fagu boppam may ko wér te jafe-jafe yi yàlla teggeel ko ko ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci loxoy yoon fi mu nekk nii yal na leen fa yàlla jële delloo leen ci seeni famille di leen wax ne ñu ngi bokk ak ñoom métit bi ak naxar bi te am yaakaar ne jafe-jafe yi xat-xat bi ci barke weeru koor bi balaa weer bee dee yëpp dinañ tàggoo moom incha allah am na solo Ndeye Marie macha allah am mbégte contentement di bokk ak genre jigéen ñi mel ni yow macha allah plateau ci ñëw ci kanam gën yaatal su ko defee damay delluwaat ci grand chroniqueur bu ko defee mhm. nga ni koy defee saa su nekk rek yow. waaw ah, jàttu xanaa di la jaajëfalaat euh, bu mhm. may ñëw si revue des titres maa ngi nuyuwaat directeur bu baax. Mhm. di profité ci weeru koor bi di ko ñaanal di ñaanal suñu borom ba ñu yëg ko bu baax ci télé bi te tey buñ fi toogee. xalaatam la effort am la vision la donc ñu ko si ñaanalaat euh, fii ak déwén fu ñu dégg Kër Ndanaan TV mu gën a dem ci kanam gën a law mbir yi gën a dox te am bu baax am nañ ci bu rafet bu baax gannaaw nag tey dama indiwoon ñeenti ponk euh, ponk bi njëkk bi mooy démb lañu tàmbali li nga xamante ne moom mooy weeru koor mm-hmm. donc ñaareelu ponk bi mooy déclaration candidature bu Moussa Diop Euh, nekk ancien euh, directeur Dakar Dem Dikk euh, ñetteelu ponk bi aussi ñuy wax ci arrestation ki nga xamante ne mooy docteur Babacar Niang mm-hmm. buñ ci jógee aussi ñuy wax ci interview bi nga xamante ne le président Macky Sall def na ko ak benn journal bu nekk à l'étranger par rapport premier point bi comme ni ko ñëpp seetloo démbu alxamis la sénégalais yëpp daal di umandoo koor mu nekk loo xamante ne vraiment ñu koy ñu koy bu baax a baax di ñaan rek yal nañ ko fekkee déwén ñu bëree bëri te lépp luñ ci ñaan rek ak lépp luñ ci jaamu yàlla yal suñu borom euh, nangul ñu ñaareelu ponk bi kii di Moussa Diop euh, nekkoon ancien directeur euh, Dakar Dem Dikk àndoon ak président Macky Sall gannaaw bi mu génnee alliance pour la république wala gannaaw bi mu génnee coalition Benno Bokk Yaakaar ndaxte dafa am coalition boppam bu ñuy wax coalition bëri moom nee na il sera candidat à l' élection présidentielle du 25 février 2024 euh, mu nekk nag une candidature boo xamante ne ñu bëri ñu ko doon xaar euh, bu ñu paree si loolu tamit dañu dem si arrestation ki nga xamante ne mooy docteur Babacar Niang nekk njiitu suma assistance donc démb euh, lañ ko arrêté fële ci Medina Ndiaye bi mu nekk nag arrestation boo xamante ne jur na coow lu bëri donc mu nekk loo xamante ne daal jur coow lu bëri internet yi ñu ciy wax fii ñuy nag mooy interview bi nga xamante ne président Macky Sall daf ko def ak benn journal bu France donc euh, mu ñëw ci mbir yu bëri pratiquement mu ñëw ci provocation ki nga xamante ne moom Sonko président Macky daal ci àddu daal di ne euh, benn opposant buy wuy buy wuy ji yoon warul tax ñu salfaañe dëkk bi warul tax ñuy troubler ordre public bi donc nee na ci loolu état bi dina jël ay responsabilités ci lépp loo xamante ne euh, jëm na vraiment ci kaaraange doomu aadama président Macky Sall xaw tuuti brosse bi nga xamante ne mooy troisième mandat bi parce que nee na en 2016 bi ñuy defaraat bi ñuy defaraat référendum bi euh, mandat bi nga xamante ne mooy mandat de sept ans bi bokk si woon donc loolu nag nit ñi di ruumandaat est-ce que président Macky Sall nekkul dafa bëgg a def troisième troisième mandat ñii di wax second quinquennat mu nekk loo xamante ne daal jur na coow parce que depuis boobu ba tey président Macky Sall waxul ni dafay bokk waxul ni dina bokk depuis boobu daal mu ngi mu ngi nekk dans le clair obscur comme ni ñu koy waxee waaye bi mu jàkkaarloog journaliste boobu ñu ngi sentir ba léegi président Macky Sall mu ngi daal nekk ci leeral. mu jur nag coow lu bëri nit ñi di ci waxtaan ku nekk daal ak sa commentaire jatu loolu laa indi woon muy mm-hmm. ñeent point yooyu di la jaajëfal allah Alassane am na solo nee naa la yow dañuy am euh, mbégte contentement di bokk ak yow allah ndax euh, da dem xool li askan bi soxla actualité nga na ko ci bi am na solo macha allah su ko defee ma bàyyi leen yéen waa plateau bi point yi a indi ku ci am loo ciy participer rek euh, oustaz ma njëkk di yor am na kàddu yoo war a sànni. woow bi mu ci gën a intéressé gën ma cee ñëw lool mooy li ma samp muy diine na li ci des li fi àddina la la euh, li ci dëgg yàlla ko yàlla sàmm mm-hmm. la ju dul dëgg it yaa nga leer mm-hmm. wàllu arrestation booba mm-hmm. ñu jàpp docteur booba mu jàpp ni koo xam ni tajkat mooy yitteem kenn waru ko xañ liberté boobu bi ko bi ko ñaareel mooy loo hmm, waxati woon ci ngóor si sàll dafa def euh, benn déclaration daal di wax si par rapport troisième mandat waaw ci troisième mu ci wax hmm. ndax bi sama app li may wax rek mooy yàqte bi am ci réew mi nañ ko bàyyi ndax jullit jullitee mbokkam te man wax dëgg yàlla nga xam ne lii sax alal mu ngi lay jëriñ ma ñëw yàqal loog après ban jëriñ laa ca te seen Cheikh Tidiane Makoum dafa wax ni balaa ngay wax nit balaa ngay wax ne reyu gu ma nit bàyyil ëllëg ba nga teew ca kan mu yàlla nee na tax moo ñu tax Cheikh Mahamad moo jàng ne al muslim ma sami'al muslimoona min lisaanihi wa yadihi waaw dafa xam ne jullit do jullit jullit mooy mbokkam waaye rawatina jullit warul looy ci warul nga ci loo àggee jullit ci lan ci loxoom ak làmmiñam jamono ji nag ñi ngi loree ci suñu làmmiñ ñu ngi loree ci suñuy loxo kon yàqte gi buñ ko mënee bàyyi nañ ko bàyyi yaakaar naa ni euh, yooyu daal lañ ci mën a wax mu duggee ci koor gi nag moom comme ci lañu ci lañu ne incha allah mu leer ma ne am na ci aaw yu dul woor moom dañu ca wax incha allah. dañu ca wax incha allah am na solo yaa ustaz ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax su ko defee moom bàyyi la Ndeye Marie yow moom xam naa ba ñàkk boo ci war a waaye mais xam naa du bëri parce que xam kañ na loolu du moom mooy thème waxtaan bi. mais li ma si mën a wax rek mooy ku si mel ni maître Moussa Diop. c'est son droit yaakaar naa Sénégalais bu ne. am na droit sañ ne. Euh, taxaw ne dama bëgg a jiite réew mi. Mm-hmm. maintenant est ce que ñeneen seen peuple bi moom mooy décider ndax dina ko ko jox wala du ko ko jox. Mm-hmm. leneen lu aussi di naqarlu xaj na arrestation docteur bi ak lu munti def. Mm-hmm. parce que médecin la te xam nañ ne Sénégal dèjà suñu médecin yi doy. bu ñu jël ay médecin di denc. ko defee toujours day gàllankoor li nga xam ne mooy wàllu liggéey. xamuñu nag lan moo xew lan la jotee kii bi. te yaakaar naa même yenn façon arrêté ki sax ci dafa dafa dañ koy parce que koo xam ne kilifa la si réew mi dem na at yaakaar naa boo ko woowee ko wuy si moo gën a rafet ngay déployé yu fekk ko yi ko sax da tiital sax ñu ngi koy fekk loolu gis nañ ko lu bëri leneen li muy troisième mandat bi <clears throat> ñun xam nañ suñu position c'est clair te yaakaar naa Macky Sall moo ñu ko indil président Macky Sall ndax moom moo ne woon troisième mandat maanaam julli suba la ñaari ràkk la boo yëkkatee ñetteel bi dañ lay sàbbal waaw naa loolu la Sénégalais nekk di def ñu ngi koy sàbbal ndax imam bu ñëwoon la ak ay nopp wala dafa bàyyi nopp yi këram ne xaj na nopp yi dafa takk casque léegi xanaa ni ñu yoot ndànk dem ba ci nopp yi root ci casque yi sàbbal bu boobaa bu ñu déggee mm-hmm. dañ na dina toogaat daal di taaya sëlmal mm-hmm. loolu la xaar si moom parce que kenn waxu ko moom moo ko waxoon parce que bi ñuy voté yaakaar naa amul fu mu demoon wax na ko ci français wax ko ci olof fu ne dem na di ko leeral ci loolu rek logique boobu te gëm naa ne euh, lu ñu nangu lu toon Ablaye Wade parce que yaakaar naa Ablaye da ko jiitu bu mm-hmm. ñuy fal Ablaye Wade parce que dañu sonnoon ci PS ñu fi nekkoon toog def 40 ans ñu ne léegi désormais fu ne da ngay def dem bàyyi sa morom def parce nag réew mi Euh, lii problème mu sénégalais tey dañ koy wax même boo demee si parti politique yi association Sénégal dañu amul habitude di dem boo xasee nekk fenn doo dem te lépp loo bokk ak nit ñi nag bur gëm nañu rek yaa ko mën donc problème la tey et loolu bu demee nag bu bëgg indi ay loraange si réew mi yaakaar naa ne serait-ce que man dama leen bëgg a mais dem naa ba bëgg bi ma bëgg man mu ngi yàq lu bëri mais man kese waruma jar ñu yàq réew mi ñuy tëj ay nit di lakk ay kër di def ay problème mais ñu ngi ñaan yàlla xaj na ñi ko gën a jege rocc yi casque yi si nopp yi ndax mu mun a dégg sàbbal bi mu mun a jeexal njulli mi mu mun a jàll ci leneen. am na solo macha allah am na solo day faatu. waaw nga bàyyi la si sa sa mm. comme comme comme comme niñ ko jàll comme ni ko gars yi <laughs> jàllalee rek. moom ah, mooy mooy ah, turandoo. waaw waaw moo la ko gën a xam ne day faatu yee koy dundal. non xam naa loolu. Mm. mu mu nii. waaw mu ngi bëri day baax day faatu. waaw bii la de du bële. dañoo bëgg ah bii ah, nañ yam fii rek. <laughs> waaw Alassane damay ñëw rek di di di la poser benn question mooy à savoir parce que day baax suñ toogee fii ci ëttu Kër Ndaanaan TV. Mm-hmm. ñi nga xam ne nii dañuy taataan fii ci Kër Ndaanaan TV di ñu xaar à chaque instant. Mm-hmm. lépp loo xam ne dafa xew muy actualité. amaana sama yaay ba toog kër ga di saytaan Kër Ndaanaan TV mën na bañ a xam ce qui se passe. Mm-hmm. man ma bëggoon a xam rek docteur Niang boobu noonu ngay wax noonu. lan mooy raison arrestation am lan moo tax ñu arrêté xam nga dafa ne question boo xamante ne bu complexe. Mm-hmm. man mënu ma wax avec précision li moo tax ñu arrêté ko waaye li am ba des mooy dafa am par rapport nga xamante ne jotoon nañu gaañu si manifestation yi comme ñu bëri ñoo xamante ne dañ leen dañ leen rawale foofu si clinique suma assistance. si euh, li ñu wax nag nee nañu Pastef dafa signé benn convention ak euh, ak suma ak suma assistance mais benn benn waay joo xamante ne Médina la dëkk. nekkoon ci mairie bi foofu mu am ñi mu joteel ba ñu gaañ ko bi mu ñëwee ci clinique bi bi ñu ko fa évacué ñu laajte est-ce que moom Pastef la bokk wala ko Pastef selon li ñu wax man nag awma ci vraiment ay information yu clair mais lu ci mënti nekk rek euh, man information bi mu jot mooy arrêté nañ ko xaw ma nag est-ce que loolu lañ ko arrêté wala est-ce que li ñu wax laaj nañ ko question ndax Pastef la bokk est-ce que am na wala am loolu mm, waaw ba tey comme dañ nekk ci ëttu information kër Ndanane mm. TV mm. dinañ yebal suñu ndaanaan ñu dem xool gëstu ba xam lan moo waral arrestation boobu pour ñu ma leen ko indil ngeen gën a xam mbir yi fan la situé ku nekk fan la taxawee ba tey mu ñëwaat tamit ci euh, candidature sëñ Issa moomu noonu Moussa Diop sëñ euh, man damay faral di wax ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk te comme ñun ñoo bokk ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal Euh, kenn ku nekk am nga droit euh, laaj laaj laaj nga baatu askan mm-hmm. waaye nag ak ah, kan moo war a laaj baatu askanam loolu c'est très important parce que dañuy gis ne Sénégal fii euh, gars yi comme ni ñu koy waxee rek mën nañoo fal lool waaye mun mun mën nañoo folli lool waaye mënuñoo fal mm-hmm. ñu ñun ñun nag ñu taxaw taxaw taxaw taxaw seetlu taxaw ci benn mbir boo xam ne nii bëgg nañ képp koo xam ne nii rek yaa ngi jóg ñëw di laaj suñu baat ñu taxaw saytu la ba xam yow ban façon nit nga ba pare ñu saytu la moralement saytu la professionnellement xool yow ndax yow suñu réew mën nga ñu ko yoral war mën nga ñu ko téyal parce que Sénégal defe naa ne mettit bi fi nekk ak tartar bi nga xam ne moom la nit ñi di jànkonteel yëpp du dara lu dul bu waree fal dañ dul xam kan lañ war a fal dañuy fal ci émotion di fal ci yaama neex di fal ci ci ci ci parparloo ñu nekk nag pays ñu nekk réew xam ne nii suñu bëggee problème yu bari bari bari bari jóge ci réew mi dinañ xool bu baax nan la ñuy falee ak kan ak kan la ñuy fal may may may daanoo ci loolu noonu rek di di wax ni euh, lu lu bokk lu ñëpp bokk dañ koy mayonnaise rek ku nekk jàpp baa ñu am la par exemple oustaz gi di cof di cof di cof Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar lépp loo xam ne rek euh, nekk na fi muy tolof tolof foog naa ne war nañ koo mën a teg ci table ji ñu xool nan lañ nan lañ ci indi saafara bala muy jur jàngoro jatoo mu ñu ñëwaat. macha allah ay kàddu am na solo. waxul waxul ci koor ci ponk ci leen ci non koor gi instant xam nga li tax du ma ci wax. dinañ ci ñëw non moom xam na li tax ma wax ci ñëw dinañ ci ñëw macha allah Ndeye Fatou macha allah nee naa la dañuy am mbégte di bokk ak yow euh, plateau bi ndax macha allah say idée say xalaat su ko defee waa téléspectateur Kër Ndanane TV ak ñun waa kër yi ñëpp euh, suñu beneen. naataango bi lu baax mu présenté toog moom comme ni ko xaw a tawat tey. dafa amee dafa amee jaar dafa si li mu wax nee na dafa tawat lu baax li nga xam te dëgg da nga ragal ko. non dafa amee jaar. moo xoolal du jaaree du affaire jaaree. dé dé dé deuxième jour. deuxième waaw mais dafa amee jaar. deuxième jour koor. du ñàkk lu mu deuxième jour koor benn fan lañ waroon defaguñu sax deux jours kaa nga woote téléphone tëdd sa lan. non man maa la nii dafa sot non man maa dafa jaaree. ah dafa jaare. dafa jaare ñu jàppale dafa jaare rek. waaw jàppale kon ñu jàppale ñun ñoo ko gisoon ñoo ko dégg ñu jàppale. am na ko yàlla def yàlla yàlla na ci yàlla def nañ ko déggal ba ci suuf. nañ ko déggal ba suuf bi dafa yokk dafa yokk. waaw day yokk jaare bi. xam nga ko la dafa feebar. Mhm. ñu ne ko lan moo la feebar mu ne sumb. ñu ne ko lay faj mu ne sumb. kon moom dama ne dem ma ci sumb. ah kon loolu am na solo bu ko su ko defee ñu ngi lay ñu ngi lay ñaan yàlla suñu borom yëkkati nga dellusiwaat ndax soxla nañ la fi incha allah rabbi soo defee comme ni ñu koy waxee rek oustaz kër gi chaque chaque fois rek dañuy indi tam teg ci table bi balaa ñuy dugg ci balaa ñuy dalal suñu invité bi dugg ci dalal suñu invité bi di moins mhm. nga xam ne moom mooy tam comme nekk ci weeru koor gi ñu ngi a dugg ci koor gi ah, xam yaa ngi réer xam daa mel ne da ci ma jëm de koor waaw ci koor gi daal lañ dañu benn benn kii bu ndaw rek benn parenthèse ndaw waxtaan comme dañu dugg ci koor te deuxième jour koor bi oustaz yaa nga ñuy wàcce ndax ñun te nee naa yàqate bi dama wax ci góor ñun jigéen ñi ba tey comme mois de femme lañu nekk jigéen ñi laay ñëwaat rek ndax ñun dañoo mën a yàq suñu yàq dafa jéggi dayoo te nee nañ weeru koor dafa nekk loo xam ne man nee naa yàlla sacré weeru koor weeru koor dañu war a économiser weeru koor pour si sama xalaat bu gàtt ci la lépp war a waaye dañoo war a économiser waaw ndax weeru koor pour su ma koy waxaat ma mën koo xam daal économie économiser na ma yàq nu ma nu ma nekk mën nga ko ko waxee ah. ci sama xalaat war a yaxanal rek voilà mooy yaxanal bi mooy sakkanal bi mais da ngay gis ne weeru koor <laughs> da gis ne da ngay gis ne maanaam ñun jigéen ñi ci la ñuy gën a mën a yàqee da ngay gis ku dem sa table tey ni jot la table am lu ne la ciy teg lekk ndeysaan yaa ngi ca fataaya yaa yaa ngi ca gabale yaa ngi ca fonde ba yaa na yëpp rek ci la bokk laax baag lépp nga laax baag nga teg ci laax mm-hmm. maanaam kenn lekk dara te weeru naa ne oustaz loolu dañ ci la lépp gën a war a mën a nga a sakkane mais dañuy gis ne weeru koor ci la ñuy gën a dépense bi gën a bëree oustaz loolu loo ci indi tey indi ci loolu ndax dañ ko soxla ñun jigéen ñi. la bu ko defee. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu DG. ñu mhm. doon door ñëw wéew ci buntu bi. Mhm. ñu ngi koy nuyu. xam naa daa. xëy na comme d'habitude moom muy gis. moom bëtëri kenn ko war moom bëtëri ko war. Euh, daf mënul jaaxal na ma ne bëti ko nangoo war. bu ko defee koor tax na jatu. Ah. borom bi subhanahu wa taala dafay waxee ni. Mhm. fay xeet ci ci ci ay xannaasu. yéen nit ñi bu dee nit ñi nag yéeféer beeg juif beeg jullit beeg ñëpp ci bokk yam bu dee ay xale dina kafaroo nag ñu weddeeku tax di wax kon jullit bokkul waaye bu dee ay xale dina amunu kawe de taxul ñu taxul ko di wax waaye ñun ñi ne gëm nañu yàlla ñun ñoo tax yàlla di wax mhm. yàlla moo ni man yàlla maa leen digal ngeen oor kutiba alaykumu siyaam ah maa leen digal ngeen oor lu mel ñoo laaj yàlla ba xam ñun dong ko digal mu ne déedéet kama kutiba ala lazina min qablikum comme ni ma ko diggalee woon leen jiitu woon kon digalaa leen oor comme ni ma ko diggalee woon xeet bi leen jiitu la njëkk xeet yoon ca Muhammad di ñëw alayhi salaam bu mel tamit alsaan dañu laajaat yàlla koor moom luñ ci mën a gañe hmm. mu ne xanaa la'allakum tattaquun mooy taqwallaahi te mooy ragal ragal yàlla lañ mën a décrocher ci ku wóor ca nañ la ko santee baa xam nga ni koor lekk ak naan moo gën a tuuti ci lañ lay tere ci ko lekk ak naan moo gën a tuuti ci lañ moo gën a tuuti ci lañ lay tere ci koor ñëwal ñu ci tere yi mën a xam lekk naan moo ci gën a tuuti mm-hmm. ndax bu doon lekk ak naan kese la kese kon da ngay gis bu xëyaale caag rek soow lekk ba bi yoon fees mu teg ci poto ndox continué kooram kon waxee wuñu foofu fa ñuy waxee mooy lépp mooy or ci sa jëmm ci say gët say nopp sa bakkan ah, say loxo lépp ci yow ko defee loolu dinañ ci ñëwaat ci yeneen i tem mhm. waaye nga sunu mu jigéen ak koor da naan yàq ci biir koor waaw ndax ñun la rek ñun la rek waaw ndax ndax damaa jàpp ni koor gannaaw boo ndogoo ba noppi loo fa lekkat doy na ndax diggante bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay ndaw mm-hmm. ak bi guddi gi di xaaj daanaka benn la léegi nag da ngay xool ndaw si nga xam ni ci biir koor moom xëy na ndugg ceeb ndugg soos mm-hmm. ah nduggaale ndambe mm-hmm. nduggaale macaroni bëgg nga ndambe oustaz ah bari nduggaale eh, kii laax laax ci laax da ci bokk fonde ak da ciy lekk ci bëccëg gi yëpp ñoo toggandoo ko teg ko ci teg ko ci teg ko ci euh, ci ci taabu feek mhm. wala bu dee comme suuf mhm. ku ne càpp di teen mhm. waaye léegi loolu amul lu ko gën gis nga xeetu jus yi am baax na de baax na maanaam li may wax nii bonut bonut de waaye am na lu ko gën yow bu la leeree man mii sama bisu tey bii am naa lu mu toggee ceeb ak soos waaye sama tontu amul lu mu toggee soos su li may war a toggee soos doo ko jox sama nijaay yow nga togg sa ceeb bu togg soos wala nga togg sax soos bu togg ñu togg la ceeba togg ceeba waaye bi rek dañuy boole lépp ci benn ndab te xam fu ñuy mujj tuur mooy yàq bi mooy yàq bi am yàq bi da ngay gis ndeysaan bu koor bu koor jubsee lañu war a jaamoo yàlla ñu koy def ñu ngi woor mhm. waaye ci koor gi la ñuy yem ñu ngi woor gaa ñu ngi woor sénégalais waaw xiifal la ñu ngi woor parce que ñu ngi xëy lekk ñu naanuñu waaye ci lay yem waaye mbooleem li lay tere ci te te na nga jàpp ni la la yàlla am loo xam ne teg saison. waaye waaye dafa am particularité. maanaam. li yàlla di tere ci budul koor yëpp. Mm-hmm. ci koor moom la la tere. Mm-hmm. waaye ci koor nee na la li mu lay def loo yëpp nga def ko. moo koy fay maanaam maanaam li mu voilà moo koy moo koy fay boppam waaye fi ma waxee mooy bul jàpp ni man daal julli moo ci weer wee weer wi damay julli am na ci ñoo xam ne bare ñoo xam ne dinañ or julli ba koor gi jeexee duñ a julli ay na maanaam démb ci njëlbeenu koor julli nañu naafila nañu mhm. xëy nañu woor tey bu te loo ci xamul xam nga koor ñetti pàcc la <laughs> ñetti pàcc la. dëgg la ban ak la yërmande. Mhm. njëggal njëggal ak njot ci sawara mooy premier dix jours yi yërmande la mhm. jours yi njëggal la troisième dix jours yi njot la ci sawara mooy doo bugg sawara ah, sa xaram la lu muy nekkee nag mooy fekkee ni nangu nañ la sa koor nga ah, ko nangulee parce que li mu ci gën a métti mooy mbir ki démb benn benn waaye daf ma ne oustaz teg saison moom dagan naam mu ne ko mooy teg saison mu ma ci ñi ma ko sañ a wax mu ne ko waa mooy lan mu ne ma euh, Assane wala ànd ak guneem dem tëjug moom def ak moom li muy def ak moom tëjug moom saison bi. oustaz yow daawoo teg saison. musuma teg saison. te ñëpp moom saison bi doo ko dugal de. day faat nga gis bu koor gi ji bu koor gi bu koor gi tàmm bu koor gi ubbeekuwaatee mu continuer ci la mu newoon kon ana ragal yàlla da ngay découragé ci koor. parce que comme li nga waxee noonu oustaz ma ñëw foofu nga baal ma comme dañ comme dañuy yëggal. Mm-hmm. comme dañu si ñun ci diine li yàlla lu ñu sant mooy. tey mën nga def lu bon ndax ñun ñëpp nous sommes des humains. Mm-hmm. mën nga def lu bon mais boo jéggaloo ba tuub suñu borom ca delluwaat loolu lañ wax wala. xam nga yàllaa ko wax ci alquran mm-hmm. Euh, yaa ayyuha allazina amanu tuubu ilallahi tawbatan nasuq te xam nga tonton baatu tawbatan xam nga mooy lan tawbatan nasuq mooy xal mi nga fekk ci ëtt mi soluloo dal bu la lakkee na ngay siicoo yuuxu teg di tànk mu leer ne doo ko ci tegaat ba mooy tuub gis nga da ngay tuub da nga koy rëccu bañ ko ndamoo bañ ko ndamoo donc da ngay tuub yow li tax ngay tuub. dëgg la da nga ci da nga ci maanaam maanaam maanaam doo ca doo ca dellu. dëgg la te la nangaloo sa tuub la nga defoon ba tax nga defee ñu dem régie daal di ñëwaat àggali comme temps mhm. ko waxee rek mbokk téléspectateur que Dana am suñuy partenaire comme ni ma leen koy waxee nee leen partenaire ci lañ bokk partenaire ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ñoo jënd ñoo jënd suñu émission donc ci mel ni Stafrica Interim muy entreprise de prestation de service nekk fii ci Tëngéej macha allah ñu ngi leen di jaajëfal yéen tamit bu baax baax waa Ndaanaan Shop aussi kenn demul kenn demul ngeen def lépp yéen la donc ñu dem la ci te ñëwaat pour s'habiller chic classé glamour Kër Ndaanaan vous ouvre ses portes waaw ubbil na leen ay buntam Kër Ndaanaan shop habillement accessoire ay marque italienne boo duggee Kër Ndaanaan ba génne ñu xam ne dëgg nag différence am na yow mi seet sac bu am classe sac de marque sac bu glamour yaw mi nga xam ne nag ay rob ngay wër ay ensemble combinaison ay chaussures de marque façon boo leen ci bëgg fii mooy Kër Ndaanaan butigu Ndaanaan yi butigu star yi fii rek la Erika amul benn secret fu dul kër ndaanaan fu mu génne fu nekk marqué la différence adresse bi Rufisque arrêt Sonadis derrière pharmacie Astel téléphone 33 836 54 23 wala 77 831 82 30 wala ngeen contacter ñu sunu whatsapp 0039 34 53 24 15 02 dama ne du bandi sañ rek ngay wër kër ndaanaan moo lay jox li nga bëgg. waaw mbokk téléspectateur kër ndaanaan TV ginnaaw bu ñu demee daal di ñëwaat comme ni ma ko waxee rek di jaajëfal East Africa Interim muy entreprise de prestation de service nekk fii ci Tëngéej ku ci mel ni aussi waa Ndaanaan Shop nee naa leen waa Ndaanaan Shop ñoom lépp lu jëm ci habillement de marque de chic marque italienne moom la ñuy jaay ku bëgg sañse lu rafet muy góor jigéen dem leen yaa ngi fa combinaison yaa ngi fa chemise yi jean yi veste yi jigéen waaw waaw bu ni góor jigéen mm. ak jigéen ak jigéen jërëjëf muy góor muy jigéen comme li ko oustaz waxee na man lii waroon na ko fi teg damay juum mooy corrigé man lii laa bëgg lii moo tax may bëgg muy den ak man saa nekk daw leen ko defee ñu ci fii ci Tëngéej ginnaaw pharmacie Astel seen numéro téléphone mi ngi nekk 77 831 82 30 831 82 30 daw leen ngeen seet waa Ndaanaan Shop nee naa leen ku bëgg sañse bu rafet demal seeti Ndaanaan Shop su ko defee dañuy dellu si waat comme comme ni ma ko waxee rek ba tey yaa oustaz ñu daal di continuer tuuti ci benn par yeggali parenthèse ci koor gi su ko defee ñu daal di mën a dalal suñu invité bi ndax tey ji moom mooy ganu kër gi faa ñu daal di ko daal di ko dalal. waaw kay suñu gan bu rëcc. ñu mm, koy dalal ko di euh, yàlla mu ñoom ñoo jaay xaar entrepreneur. waaw xaar beeg màdd jeeg koy jaay xam nga ndeysaan dox ma jàpp. Mm-hmm. man bu ma gisee kon damaa ragal koo bu mën a ñebe dama lay mbéj waaw boo la ñemee. du koy métti du doo métti. waaw kon ko waaye waaye xëy na waaye ak da ngay bu fekkee da ngaa sori ma xaar la xëy bu fekkee ñeme ma laa maj ma sore la. ma tëmb la kaba. yàlla na ne doo xeex. maanaam xam nga. am na bët yoo xam ne na jàpp fi mu toog nii. waaw léegi ma daanu fi ma toog. ndeyfaat da ngaa am fit yow. maanaam gis nga xam nga. ndeyfaat comprendre naa léegi ci mois am na fi ñaata jours trois cent soixante cinq jours ñu jox la ci benn vingt neuf bu bëree ba bëri trente jours gëj nañoo war trente jours na yàgg na la vingt neuf jours boo xam ni sippeeku la ci bàkkaar maanaam mhm. raxasu la sangu la sangu mhm. vingt neuf jours kese mhm. ci trois cent soixante et quelques jours ñu ne la ci biir trois cent et quelques jours yi rek jël nañ ci benn vingt neuf jour jox la ko yow durit bi pour nga sangoot yi pour nga sippee ko ci baax pour nga yëlëbu pour nga yëlëbu dina ci yow yëpp rek durit durit bi dafay daal di dem lépp la rëccoon nga dabu ko lépp la rëccoon nga dabu ko na solo ñàkk julli gi mhm. euh, ñàkk jaabu yàlla gi ñàkk maandu sa làmmiñ mhm. maandu da mhm. sa yoon nekk nga wax ko xam nga wax dafa am wax wax dafa am ñetti kaso ñetti ma ko oustaz dafa am wax boo xam ni ka ngay waxal est-ce que moo moom nga war a waxal. dëgg la est-ce que fam war a waxee. Mhm. est-ce que jot na nga wax ko. am solo nga wax oustaz. sëñ Babacar day wax ni. am solo fenkat pire. Mhm. mooy koy wax dëgg te yoonam new ci. ngeen. dëgg la mhm. bàyyi tamit koo gis mu lekk caak soo nga wax si. ki wax dëgg <laughs> te yoonam new ci. loolu mooy loolu mooy fenkat pire xam nga mooy lan. mooy sama nijaay ñuy bokk nañ plateau. mu wàcce woon nit bi. xam nga bokk nañ dëgg la wàcc nañ war a ñibbi mu aw fu mu aw fu mu jaar. Hmm. ba dem ba yegg ñu ne waaye gisoo tonton ma ne la ah, kay daa jàdd pourtant dëgg la. Hmm. gis naa ko ñoo ànd mu jàdd. Hmm. dëgg la de. dëgg la sa sama yoon yi nga loolu mooy wax dëgg te kooku mooy fenkat fii mu wax dëgg la gaa dëgg la gis naa koo jàdd na. mooy pire ba mooy pire bi. waaw yërëm newul ci la may wax. kon koy koo koy fenkat. koor. li tax ñu ne naan boo amul loo def tëddal nelaw pour sauver la ci bàkkaar. ndax kër yi kii woo tëdd ci nelaw day am tuyaaba kon ki kooku bëgg na nga am tuyaaba. la yow président buur boo xam ni daf lay yéene njub. yéene la aljana yéene la yéene la mbaax yéene la lépp teraanga boobu rek buur mu ne la boo wooree bu fekkee da nga mel ne day faatu tëgal nelaw mm-hmm. nga xam ne su boobaa xëy <laughs> du nekk ci dara. nekk ci dara doo gis dara doo dégg loolu ngelaw. doo gis doo dégg. yeewu bopp. waaw ah. loolu dañ ko war a liggéeyee bàyyi ndaw yi ñu dem liggéeyee. non man waxuma ak yow de man damay wax en tant que li yàlla wax. day ma ci day faatu. day faatu la waaw maanaam. damay wax juste li yàlla wax. Mhm. maanaam day liggéey. Mhm. bu la leeree ni mënuloo téye sa laaj bi su ndaw si. nga dem tëdd nelaw. bu sa bët si mënuloo koo téye. Mhm. dañoo def benn conférence ne waxtaan am ci <laughs> invité maa ngi maa ngi jéggalu ci temps bi may jël. Mm-hmm. neen waxtaanam ci dëkkandoo. Mm-hmm. dëkkandoo nangam nangam nangam nangam. Mm-hmm. ma ne ñeenti yi. bokk nit mënut a respecté mënut a respecté dëkkandoo. mooy ban ak ban làmmiñ. bët. bakkan. gémmiñ. waaw ñeenti yi ngi nii. nit ki ba mënut a ba mënut a respecté noppam. mu war a dégg mu dégg ko. mën naa respecté ma comme ci bitti. lépp ci dëkkandoo. lépp ci dëkkandoo. nit ki ba mënte téye ay gëtëm ba xool la ko dagan. dëgg la dana respecté ma mm-hmm. dëkkandoo ci bitti. Mm-hmm. nit ki ba mënte respecté làmmiñam. Mm-hmm. ba wax lu waxu. ak fan ko war a waxee est ce que jot na. est ce que mën na téye dëkkandoo. nit ki ba respecté wul nafsu bakkanam ba mën koo jéng aawale ko fa neex yàlla est ce que mën na respecté ñeent yooyu am na solo oustaz. xam nga kan la ñuy nekk jullit rek. doy na waar day faru boobu day faru. métti bi waaw oustaz am na solo macha allah. nee naa liy dugg nag. loolu la ñuy bëggoon invité bu ko defee. ñu door a ñu door a kii donc comme dañoo am invité mu ngi la sàngal kam. fu muy jaayee xaar waaw muy Ndeye Marie. jën laay jaay jën ah jën. jën laay jaay. dafa mën tooñ. waaw bàyyi ko rek. nii muy ne muy Ndeye Marie macha allah Ndeye Marie Samb jóge ba sàngal kam di entrepreneuse bu mag nekkaat en même temps aussi Euh, euh, conseillère municipale macha allah moom moo ñëw tey fii ñu war koo gana war ko dalal fii si Kër Ndanaan TV nga xam ne fii mooy Kër Ndanaan yi maanaam fii jàmbaate jigéen xarante jigéen comme mois de femme la ñu nekk ba tey rek moom laa leen tegal leen dama koy bàyyi moom mi nga xamante ne tey jii moom tant que tey dama la bëgg question ma lay njëkk a laaj euh, en tant que yow entrepreneuse donc dama lay laaj sa début donc ba pare début bi qu'est-ce qui t'a motivé ndax lépp lu di dugg rek am na am na loolu motivé lan moo la motiver à ce euh, bi ngay yëngatu comment ça se merci beaucoup Diatou. <coughs> donc euh, di profité aussi di sargal jigéen ñi. waaw ci mois de mars bi xam nga man dama xër si jigéen ñi. parce que dañu nekk couche boo xam ne dañu vulnérable. Hmm. te ñu nekk si réew moo xam ne aussi du ma ne xamuñu seen valeur mais parfois dañuy ñàkk yërmande si ñoom. te dafa metti nit ki mu nekk néew doole ba pare ñu koy néewalaat doole donc loolu mooy li nga xam ne moom la généralement jigéen ñëpp di dund di ñaan nag jigéen bépp boo xam ne mu ngi dund lu metti rek yàlla naka ka yàlla teggil donc ci sa question boobu li tax ma entreprendre c'est vrai que dama si yàgg si entrepreneuriat mais euh, amu woon sama entreprise dama doon former ay entrepreneur bokk si seen club yi donc di def ay formation en entrepreneuriat en gestion et cetera. Mhm. commencé woon naa xam nga Sénégal rek prestation ba mu yàgg lu neex après nga dem liggéey si bureau yi. mais bi ma gën a motiver nag si bii nii pour ma demal sama bopp. bokk na si dama amoon doom euh, ma nekk man kese ma sama jëkkër. Mhm. Euh, aw ma ko ma ko téyel. juddu na ba presque cinq mois. Mhm. imaginel may xëy sàngal ka am ba VDN su may dem damay boot sama doom dem liggéey. di si profito di remercier bu baax sama ki ma doon jiital ki ma doon liggéeyal présidente jigéen la mais taxul mu ah, taxul jigéen ñi am comprendre mais moom daf ma nangu nanguloon may ñëw sama bureau di boot sama doom di toog tiim sama ordinateur di liggéey si projet laa nekkoon des fois nga nàmpal ko non damay nàmpal day jooy may dem si yaam bi di nag si roon table bi fa laa doon lal di ko fa bu nelawee bu ma dem ci toilette bi champ ba muy cinq mois si lay door a am jànq bu ma ko donc malgré ça aussi mu metti woon torop torop metti waaw doom metti di dem di ñëw nekk yow kese war a loolu yëpp donc bu projet bi jeexee nag mhm. ma ne vraiment dootuma liggéeyati bureau franchement lii mënatuma ko parce que mënuma di bàyyi sama kër bàyyi samay doom mhm. su ma demee balaa maa ñibbi si vingt heures te comme ni ma koy waxee jigéen dama naan leen nit mënul am alal ju gën a fort doom c'est vrai que dañ koy fàtte parce dañ ne autonomisation foog ñu am xaalis foog ñu liggéey parce que yàq nañu ci loolu mm-hmm. mais dañuy fàtte benn instant dañu war a am lu ñu war ci suñu famille suñu mm-hmm. doom yi nga xam ne ñun ñoo leen fi indi ñu war a leen sàmm war leen aar war leen a yiir mm-hmm. te bu ñu toppee wutam xaalis mi dina bëri lu ñu rëcc si kër yi donc ma décidé woon ne man de jaral na ma ñàkk liggéey mais dootuma dem di liggéey kenn mu naan ma huit heures ngay ñëw di sept heures ngay wàcc may daw donc ak sama jëkkër maa koy remercier mu jàppale ma si bu baax ñu ànd boo ko xalaat waaw trop macha allah ñu ubbi suñu poissonnerie maag moom <coughs> mu di ma si gunge donc noonu laa duggee mais lu ma xam la parce que yàgg naa si yàgg naa former ay entrepreneur ñuy entreprendre ay jeunes ay mag ay jigéen ñu nekk ci entrepreneuriat ma di leen gunge ñuy réussir seeni entreprise donc aw tax aw ma si woon jafe-jafe bu bëri. ma ko waxee rek mbokku téléspectateur Keur ma leen ko na a wax a dégg déggagu leen lépp mais part ci lu mu wax. Hmm. maanaam da daan bàyyi këram liggéey donc loolu moo leen di wan ne leen ñun jigéen ñi ñun gàcce ngaalaama dañuy wax rek à chaque fois parce que ñun amul kenn suñu fay. nee naa leen yàlla moo ñu njëkk yëkkati suñu bopp donc hmm. am valeur jigéen weesuwul tey ji su ko neexoon mënul toog këram mais dafa jël doomam boot ko di dem liggéey ji uti lu mu am mais il mun dafa toog na ba benn instant mu ne ah pourquoi pas ma bàyyi fi lii lépp ma dem liggéeyal sama bopp pourquoi pas ma dem concentré ma dem ma dem am solo la li nga wax foofu dama la ciy naw bu baax parce que nee naa jigéen xëy gàddu saak dem liggéey am na solo xëy gàddu saak guddi ji indi si kër gi am na solo waaye ñi dem di indil tamit da nga leen di war bàyyi xel ñoom muy njaboot gi

moo ne gënal boot doom. <laughs> moom nag boo nii damay boot tànk bi. Mm-hmm. dem moom bureau. Mm-hmm. taba tabarakallahu nekk ak moom ca la mu war a nekkee ba yàlla def ni def ni mu ni mu amee dëgg la kooku njàmbaarte la njàmbaarte la yéen la ko yàlla jàppale amiin yaa rabbi doolu ko ñun fukki góor si góor waaw mayel soo soo ñu bàyyee ñu ñu ñuy dem utali suñu bopp di sañsa suñu bopp duñu bor saak génn mayel ci tur mais njaboot gi ngeen def leen la moom uh-huh. moom laay foo dem wax ni waa léegi liggéey bi dinañ ñëw ci day faat dinañ ñëw dinañ ñëw dinañ ñëw ci day faat dinañ ñëw dinañ ñëw foofu dinañ ñëw ci day faat bi comme ni ñu ko waxee yow saa di ko waxee man nee naa leen njàmbaar xaram jigéen xaram jigéen ba tey damay continuer ci Ndeye Marie Ndeye Marie macha allah entrepreneuse maanaam damay parce que tey lépp loo gis am na ay inconvénients. donc mm-hmm. liggéey méttiwul entre ku ne xam am entreprendre. Mm-hmm. yombul. Mm-hmm. yaa yaa yu des hauts é des bas. à chaque fois da ngay am ay problèmes léegi ma lay laaj tamit yan a problème nga si jànkuwanteel. fekkee am nga ci ay problème noo ko doon dundee en plus aussi. Euh, euh, ndax da doon def ñaari question yi lay posé ndax da nga financement pour demal sa bopp wala da nga ñëw ak ses propres moyens wala comme financement sa jëkkër moo la dimbali école la ba nga dem loolu bëggoon naa nga expliquer ñu ko bu baax pour ñu gën a comprendre aussi. dëgg la jatu mm-hmm. c'est vrai que entrepreneuriat moom bu ñu ko jëlee même généralement Sénégal yombul. Mm-hmm. parce que surtout ñun jigéen ñi dañu bëri ay bëgg-bëgg. Mm-hmm. c'est vrai que bi ma ubbee sama entreprise ak léegi yàggul mais. xam naa ko parce que dama si doon accompagner ma foofu ma dooguma la comme yor man dama la ko fàttee su moom yor na entreprise boppam léegi sa entreprise bopp bi aussi pour nga wax ñu mu tudd ak entreprise bi lan ak lan nga fay liggéey pour am solo la. jën laay jaay jën jën waa ginaar. Ah, <laughs> jën yàpp ginaar waaw poissonnerie. maanaam poissonnerie. poissonnerie jën yàpp gi. donc séeréer moom. dama xam nga loolu lañ bëgg dama ko doon wax aawa ku ma romb naa amoo ya booy man nga man jaay ma donc man pour ñaareel yi laay jaayal ak ñetteel yi donc xam lu baax yi di jënd jënd lu baax yi sama sama entreprise bopp la sama jëkkër moo ma si dimbale si si financement bi moo si jàppale ba léegi moo ay jàppale parce que Euh, c'est vrai que dafa mujj sax sama doom bi dama ko mujj yóbbu crèche encore pour ma mun a liggéey parce que dafa metti donc Sénégal doon jigéen li may wax nee naa leen mm. Mm. Euh, li ngay def benn boo dee góor bu dee jigéen la dafay multiplier wu par deux wala par trois pour mu mun ko def parce que góor bu xëyee rek mun na sol yéreem génn yow mënuloo ko di nga xool doom yi di nga xool li ñu ñuy lekk voilà yooyu yëpp di nga ko def malgré que da ngay liggéey di nga mujj gérer loolu li ngay wuti di indi donc moom moom ma siy jàppale yenn yi moom moom ma koy defal moom ay livraison yi pour le moment parce que ndànk-ndànk la yeggagul amaguma yenn moyens yi pour mun a recruter yenn nit ñi mais am na kenn ku may jàppale mais moom moo ma siy gën di jàppale jatu may ma ko ma am lu ma ko laaj tuuti bi waaw jafe-jafe yi moom mm-hmm. jafe-jafe yi loolu la boo boo jëlee environnement Sénégal mm-hmm. déjà entreprendre Sénégal dafa metti parce que état bi mm-hmm. euh, dafa desee créer condition yi nga xam ne boo fi nekkee jeune entrepreneur da ngay mën a émerger par rapport ak yeneen réew yi parce que fii doo gis sax ku la taxawu tey boo bu doon dama dem banque pour bëgg a ubbi sama poissonnerie du ma ko ubbi parce que liñ may laaj si garantie ak ak kii yi wala liñ may financé man du ma ko du ma doy parce que da ngay gis ne banque boo dem ne damaa bëgg un million dinañ la jox ay trois cent pour le début. non c'est ça xam ne idée projet moom un million moo koy defar. da ngeen jox ko trois cent mais kooku koy lor. Mm-hmm. parce que projet bi du ko am. te joxul xaala bi dina yàq te moom dina la fay donc jafe-jafe boobu bokk na si li nit ñi dund dama xam parce que damay accompagner ay entrepreneur mais man dundaguma ko parce que dew ma si banque yàlla dimbale na ma sama jëkkër moo a jox ñu ngi ànd di liggéey on espère que xëy na dinañ gisi après jafe-jafe yi parce que ñu ko koy gis waaw ma entrepreneuriat moom yombul waaw comme comme fi mu ñëwee sax fi mu fi mu daanalee nii. Mhm. man foofu laa ñëw parce que dañ ne mois de mars. Mhm. Euh, ko mois de mars wax journée internationale de la femme. Mhm. Euh, journée internationale de la femme ñu dalaloon fii ci plateau ndaanaan yi. Euh, dalal fi ay ndaanaan ay jigéen ñoo xam ne nii dañuy yëngu ci domaine bi nekk. xarañ ci lool. ñu indi ren thème au niveau de l'UNIFEM. mu nekk. am am link ak yow li ngay liggéey. Mhm. Euh, ndax thème bi dañ ne pour un monde digital inclusif. Mhm. innovation et technologie. Mhm. liée au sexe. ma pour pour l'égalité des sexes. l'égalité des mm, sexes égalité des sexes boobu noonu. Euh, defe naa ne mentionné nga ci nga ne indépendance moom nga doon wër fa nga toogoon di liggéey. Euh, amuloo ko fa nga préféré demal sa bopp pour am sa autonomisation. bu ma ñëwee ci kaw autonomisation boobu noonu. Euh, dama lay laaj yow en tant que femme entrepreneur. Mhm. Euh, bien que dugg nga ci léegi ak problème banque yi. Mhm. et tout euh, thème boobu nga xam ne dañ ko indi yow yow noo koy appréhender. Mhm. ba mu man la fekk yow sa biir liggéey li ngay liggéey nga man ci jëriñu. dëgg la donc thème bi dañ koy rafetlu parce que dafa dafa tolloog jamono. parce que xam nga fi mu nekk nii des na tuuti ay at ci kanam. ku mënul téléphone. mokkaloo téléphone. moo ko manipuler. xaj na doo sax liggéey. wala boo waree liggéey il faut nga wut ku lay liggéeyal nga fay ko mu nekk beneen coût bu supplémentaire. te bu si kanamee aussi des na tuuti entreprise yi recruter. ku mënul lii kàcci kàcci duñ la jël. parce que monde bi moo toll foofu. Mhm. donc bu ñu jëlee égalité des sexes di tax ñu lié ko ak égalité des sexes parce que góor ñi ak jigéen ñi yemuñu tolluwaay ci xam-xam ci góor ñi ëpp niveau fuuf ci xam-xam ci technologie donc ñu gis bu euh, lépp loo xam ne technologie da koy maye rek. Mm. égalité doot fu mun a am. parce jigéen ñi góor ñi tolloo wuñ ci ci xam-xam. mais su ma ko delloosee man fi may liggéeyee tey sama sama liggéey maa ngi Sangalkam Sicap mais maa ngi jaay waa Pikine maa ngi jaay waa Thiaroye maa ngi jaay ba Ndofane ba Kaolack mm. mais technologie moo ma ko mm. donc il faut ma def ko ma vidéo ko yónnee ko nit ñi ñu gis ko nit ñi il faut ñu woo ma téléphone wax ma seen commande. waaw. te loolu technologie bi moo ko indi te su ma jàngutoon xaw ma ko donc il faut ma fay nit mu nekk beneen cours supplémentaire sama entreprise am na fu mu xaj mhm. donc ki nga xam ne nag xëy na xamul sax ne technologie am na moom du dem ci téléphone di jaay donc bu amul client yi si koñam wala si ruqam ñoo jënd si moom am amaana du jaay donc léegi léegi léegi ma dagg la foofu hmm. léegi ci kaw technologie boobu noonu ki nga xam ne amul xarañteef googu du mën a jaay hmm. euh, tey ji euh, du mën a jaay sax c'est que bi mooy wute maanaam du mën a na ñu dul na client yoo xam ne moom du sa jote du mën a am accessibilité parce que man su ma nekkee Sangalkam di jaay waa Pikine mënuñ xam ne ubbi na hmm. communication bi même suñu xamee ne ubbi naa mënuñ ma si boutique bi léegi yow en tant que femme yow nan nga gis ne tey ñu indil ñu tam bii maanaam nan nga gis ne noonu lañ mën a jàppale jigéen ñi. Mhm. ba ñu jot ci jumtukaay xarale yooyu. Mhm. ba mën koo utiliser lan nga gis ne moom la ñu war a def pour def bi day nekk ñaari niveau bi si njëkk il faut que état fexe ba fépp fu jigéen nekk ci Sénégal mu mun am accès à internet. déjà c'est le premier défi. Mhm. parce que man su mënee internet ma dem dëkk euh, benn dëkk si biir Kaolack. ci benn village. ma jël benn village rek kër Amadou Darabe ma dem dëkk foofu par exemple amuñu internet amuñu connexion. mënuma dugg accès à internet donc dafa loolu ne état moo ko war a def ba pare mais leneen li aussi jigéen ñi war nañoo fexe dem jàngi mhm. njàng nag question jàngaluñ ma rek du jàng jàng du wees jàng du wees nit ki mhm. boo demee ba nga xam ne yow kat xëy na sañ waajur yeewuñ woon wala fi ñu nekkoon amul woon condition pour nga mën a jàng mais soo magee léegi xale yépp a jàng téléphone bi li si jafe-jafe bi nag ñu ciy gën a am mooy wàllum liir bi ak bind bi mais gis nañ ne lu si bëri Google boo demee boo bindee olof Google day génn donc ñu ngi jàngalee jigéen ñi ci alphabétisation bi mm-hmm. donc jigéen ñi nañu gën a góorgóorlu maanaam état moo war a créer condition yi nga xam ne jigéen ñi war nañoo am accessibilité am xam-xam euh, de par les formation waaw daf leen war a doole formation yi ba pare euh, di leen ay bourse aussi Ah. mooy mooy bus yi pour ñu mën a dem euh, jàngi ji loolu nga xam ne ni tey moom la ñuy jëfandikoo parce que loo xamul rek comme ni nga ko wax ah. doo ko mën a utiliser mhm. am na solo macha allah ma ne ko am na mhm. ko defee Alassane ma bàyyi la yow ñàkk am ay question yoo ko laaj ñu dugg ci beneen kii bi Ndeye Marie maa lay jaajëfal bu baax di la encouragé mhm. wax aussi yaa ngi bokk ci femme yi femme modèle yi te Kër Ndanane a jóg ñi nga xamante ne ay référence mhm. eh, ñi mën roy ci ñoom si seen taxawaay mhm. si seen liggéey mhm. ñu invité leen ndaanaan yi ñu nekk ay jigéen comme ni ko sama sœur waxee ndaanaan moom nekkul xam nga rek du yaatu la. waaw te du ci yére aussi man mm-hmm. dafa ndaanaan du ci yére. ah yére ah. ah, si la bokk mais ci def ci yow. mooy xel bi yàlla def ci yow. intelligence ak xarañ bi yàlla def ci yow pour mën ko ba nga nekk nit koo xam te ne nga mën a dund dund lu sell te kenn la. Euh, nga yëngu ci entrepreneuriat nekk conseil municipal. Mm-hmm. bokk commission des finances. conseil municipal kër yi ñëw léegi waaw vraiment mm-hmm. loolu mu nekk loo xamante ne lu am solo la. Mm-hmm. parce que jigéen ñi dañu war a dañu war a imposer waruñu nekk rek ci politique politicienne bi ñu leen di mobiliser di leen solal ay yére non war nañu mën a aussi valoriser seen bopp fu ñu mën a nekk imposer seen bopp wane ni aussi dañu war a am représentativité. donc loolu daal laa amoon ma xam naa nag ay question yoo xamante ne mm-hmm. dinaa ci ñëw ci kanam parce que yaa ngi nekk aussi ci lañ femme politique mm-hmm. nekk Pastef mm-hmm. di yëngu bu baax ci Samm Samm nekk lu am solo xam naa si kanam damay bàyyi jatu ànd parce que entrepreneuriat après ni ci ci lañ ñëw ñu ko def pare après ku ci nekk rek am sa question yoo ko mën a posé nga posé en tant que femme en tant que conseiller municipal donc nga nekk nekk en même temps leader Pastef nekk bokk ci Pastef léegi mu bëggoon nga ñëwoon ci yooyu yow mooy dundee loolu moo koy dundee daal noo la mm-hmm. xam nga. Euh, Alassane wax na ko waaw yombul mais il faut ñu def ko parce que xam nga ñun dañuy rafetlu loi parité bi parce que mm-hmm. ren dama ko doon wax toujours di ko wax góor ñi ma ne ko gis nga dafa bëri ñoo xam ne dañuy contre dara te xamuñu li ko tax a jóg mm-hmm. parce que léeg-léeg nit def dara tey euh, suba ngay xam njëriñ bi parce que bi ñuy voté loi bi bëri na ñoo xam ne naa ah jigéen ñi dañu soof lan la ñuy doyee parité mm-hmm. jànguñ amuñ compétence lan la mais nañu xeex comme góor ñi mm-hmm. mais socialement mënuñu xeex comme góor ñi mm-hmm. parce que boo gisee politique Sénégal ni mu tëddee ay réunion yu guddee la ay réunion yu yàgg ah ay génn dem la bu dee ñu nekk ndakaar sax tane na parce que xañ ne da ngay jóge fii dem biir Dakar réunion mais boo nekkee Ziguinchor ñu war a rencontrer leader bi nekk Dakar il faut que les gens se déplacent. Mm-hmm. donc yooyu yëpp jigéen bi nga xam ne dafa nekk këram di sëy wala mu même bu sëy bu dee célibataire il faut mu tàggoo. Mm-hmm. socialement jigéen fii Sénégal du moom boppam nu mooy mu kañ la léegi am nañu xaw a am tuuti liberté mais mm-hmm. soit jëkkër ji ngay tàggu soit papa ji la soit yaay ji la soit mag ji la. donc mu nekkoon yoo xam ne daf doon tënk jigéen ñi ba politique bi. ñoom dañ ci doon profité comme ko Alassane waxee di ñu mobiliser di ñu solal di ñu wutal financement li may bañ donc fu ñu fekkee jigéen ñu toog rek loolu la ñuy mooy tàngal bi ñuy jox ñuy màcc dinaa leen wutal financement ngay màcc en attendant ñoom ñuy falu waaw donc di <laughs> loi bu ñëwee <laughs> tey par exemple législative yi passé boo ko seetee coalition yi tëddee woon nañ noo xam ne hmm. bu paree amatoon doo gis jigéen député c'est vrai jigéen député du am. Mm-hmm. ñaata góor ñoo bàyyi génn seen coalition gedd parce que parité bi tax na seen mm-hmm. position sore mm-hmm. kon noonu bu parité bi amutoon dañ leen di jegeel seen position ñu toog ko parce que euh, ci la euh, tey ji yaa ngi koy wax ñu bëri xamuñu parité parce que man dama doon dégg à chaque fois gars naan ñu naan parité jigéen dañu jël dañu jël parité teg ko naan dañu diirante góor ñu mag pourquoi ñu ne parité mooy jigéen ak góor benn lañ xamuñu am nga man mi xam naa signifie parité exactement keneen ak keneen day faat ou bien kii oustaz ou bien Alassane xam na signification parité mhm. mais y a des gens yoo xam ne ni qui nous regardent qui ne savent même pas ce que signifie parité mhm. donc parité boobu laa bëgg tamit nga ñëw ci jox leen explication lan moo tax ñu parité nekkul que ne jigéen ñu ne waa parce que jigéen a dem ak jàkk ja di jiite genre góor ñi <laughs> donc bëgg naa ne expliquer ko gars yi voilà voilà doon jëm parce que dama doon raisonné mm-hmm. lan moo indi parité après mooy expliqué mm-hmm. parce que jafe yooyu mm-hmm. xam nga bu investiture jotaan maanaam buñ daan defar liste yi Euh, dafay guddee yenn saa yi da ngay gis nit ñi ne fa ba deux heures du matin trois heures mais góor ñi ñoo fay des parce que jigéen ñi foog ñu ñibbi donc buñ fa desee ñoom dañuy arrangé wante ñi fa toog ñu fexe ba jege mm-hmm. ñoom ñu jàll donc bu jigéen ñi fa newul dañuy wax ku ku ku teewul rek parfois duñ la mm-hmm. donc ñuy teew di xuloo ñoom la ñuy jox après sànni jigéen ñi ca suuf donc loolu moo indi parité bi boo gisee parité bi dañ ne ci instance élective yi ak semi élective yi maanaam parité dañ koy def rek fi nga xam ne élection mooy tax nit ñi ne fa mm. maanaam fi ñuy fale mm-hmm. fal mooy élection yooyu assemblée la conseil municipal conseil départemental mm-hmm. foofu la parité yem mm-hmm. à la différence de l'égalité comme thème bi mu doon wax bu ne égalité damuñ góor ak jigéen yem mais si wàllu àq ak yelleef yaakaar naa même l'islam daf leen ñemale bu weesoo li war kii war kale suñu àndee mais bu fekkee ay doomi aadama kese lañ sax mm. que oustaz bu fekkee du noonu mu dindil ma ko jigéen ak góor ñoo yem ak ak yelleef waruñu lor kenn waruñu xañ kenn li nga xam ne war na ko am mm-hmm. donc parité bi loolu moo ko tax dañ ne rek bu élection amee ak instance nga xam ne si semi élective boo jëlee au conseil des collectivités territoriales xam nga dafa am parti boo xam ne dañ koy élection la ñuy duggee am mm-hmm. parti boo xam ne dañ leen di fal loolu mooy semi élective yi mm-hmm. nga xam ne moitié bi élection la ñi nga xam ne sal kese la mooy assemblée conseil municipal yi conseil départemental yi ñu ne kon foofu nañu fexe ba bu ñu tegee benn jigéen nañ fa teg benn góor wala bu ñu tegee benn góor nañ teg benn jigéen ñu alterner ko hmm. te su ne woon parité rek ne cinquante cinquante dañuy teg cinquante góor après commencé rangale jigéen ñi hmm. parce que xaj na góor ñi ñoo ñu gën a mun a xeex après culturellement dafa am nu ñu bindoo hmm. parce que tey da gis jigéen mun na si gox am doole am mbooloo mu xaar góor bu ñëw fële ne ko kaay jàppale man ma parce que culturellement noonu la ay suñuy càmmeñ lañ affaire yooyu loolu rek mooy parité mais bu weesoo parité ak nit ñi dañu war a yem ci ak ak yelleef mhm. loolu yaakaar naa li may wax nit ñi booy xuloog yenn góor nee leen tey kuñ ci fal sa doom da ngay kontaan mhm. kuñ ci fal sa doom ministre mais da ngay kontaan ku ne nga woo sama doom ji fal nañ ku mhm. fi sa jabar nekk ministre mais da tiitaroo mais su dee jabaru jàmm la mu posé le problème wala jëkkëru jàmm. waaw su dee jëkkëru jàmm mën na ko parce que da ngay gis benn jour dama dem si benn waxtaan am benn góor gu fa ñëw mu ne boobu tere fay mooy biñ ko njëkkee fal rek ànd maa moom ne la. Mm. muy naqarlu mu ne ah dañoo toog xale bu ndaw di jël kàddu ay mag toog. ah <laughs> parce que dañ ko fal ma ne ko ah, parce que da doon sa doom. da doon sa doom dañ koy <laughs> tiitaroo. ah ku ne nga naan ko sama doom bi moo doon wax xoolal vidéo bi. donc état d'esprit boobu la nekk comme nag nit ñi noonu la gisee. il faut ñu tëgg ay loi day tax nit ñu ak ak yelleef conseil municipal bi tey moo ñu ko def moo tax jigéen ñi bëri fa mhm. te nit ki mhm. euh, foo nekkul say jafe duñ ko fa waxtaanee mhm. dama ko bëree wax tey boo gisee question bi daf may ñor parce daf ñu dañuy politique tey boo demee si dëkk yi fii nii tëngéej gii nii buñ fi defoon fii robinet si mbedd mi fii rek ne robinet bi kenn du fay bu bugg rek root te doo fa gis benn góor intéressé mais bés bu robinet bi commencé ñu jaay ndox mi nga gis benn koñ bi dajaloo wut benn paa ko dee fa toog. Mm-hmm. parce que dafay indi koom. Mm-hmm. dëgg la boo demee suñu dëkk àll yi teen bi teen bi jigéen ñi di roote ñu góor ñi seen yoon new si bu seen yoon new si buñ teen bi seen yoon new mais bés bu dëkk bi amee forage ci góor ñu ñoo jiite comité de gestion mm-hmm. mais góor ñi nga xam ne bu forage bi paane moom du ñu roote te ñooñu bi paan bu seen problème li tax ñuy kaas pour ñu fal jigéen ñi ki nga xam ne tey bu forage bi paanoo moom mooy sonn dem delluwaat di wëgg mais kooku du seetaan forage bi mu paan donc loolu mooy question de genre yeeg parité lu tax ñu naan nañu dugal jigéen ñi parce que ñoom li ñuy dund seen bopp donc loolu kese la woon ci la soo rek nga daal di am yoo yoo ko jot en tout cas en tout cas waxtaan bi am na solo solo je crois que aussi mhm. mu nekk conseil municipal Sangalkam est-ce que mën mhm. nga tuuti si seen bilan mhm. li ngeen jot a def ak surtout en tant que Pastef lan moo nekk seen taxawaay pour vraiment Eh, taxaw eh, seen candidat Ousmane Sonko vraiment ñuy hmm. waayu. Hmm. loolu la waaw Sangal Kam mu ngi sant yàlla macha allah mu ngi liggéey maire bi mu ngi liggéey mu ngi def lu mu mën. Hmm. Eh, voté nañ suñu budget. en tout seet nañ li nga xam ne moom la def nañ suñu débat d' orientation budgétaire. askan bi ñëw nañ wax seeni i jafe-jafe seet nañ li nga xam ne loolu la mairie bi attan. ñu jublu si en attendant parce que mandat bi cinq ans la. munoo dajal yëpp da ngay def ndànk-ndànk at bi nga def lii at bële nga def lale mais macha allah ñun Pastef ñu ngi fay taxaw taxawaay bi ñu fa war a taxawee ñu ngi gunge bi la bokk ñu ngi koy jàppale ñu ngi koy jox suñuy kanam ñu di ko def leneen li suñu suñu leader bi aussi comme ni ma la wax ñu ngi ciy def lu ñu mën ñu ngi waxtaan ñu ngi koy jàppale ñu ngi taxawu xëy li métti rek mooy yat yat bi ñuy daw rek te te wateeg yi te ki ñuy dóor mu ngi dóor mais kenn waxu ko bàyyil ñu topp ñuy jooy naa leen noppi leen te yaakaar naa bu ñu bëggee mu jëm kanam mm. euh, vraiment je que ku nekk am na droit joxe ay idéem ci démocratie lañ ne am na droit ne d'accorduma ak ni réew mi di doxee am na droit ne su may wuyu ji fii laay jaar mais xaj na euh, ñu mu jàkkaarloo comprender wuñ ko noonu comme indi jafe-jafe yi mu jur ci réew mi ñu koy méttitlu bu baax a baax te comme ni ma ko waxee di ñaan yàlla koor gi nekk loo xam ne dafay delloo si nit ñi ah, ci ñu xam ne ay nit lañu te fii kenn moomu fi lenn lépp dañ ko bokk ah, am na solo macha allah comme dañ naan li li ñu war a wax lépp xaju fi ndax <laughs> temps bi moonu xoj waaw temps bi moonu ko defee damay bàyyi oustaz damay bàyyi nga tàggatoo mbokk téléspectateur Keur naa instant bi da ngaa mm-hmm. ma ko sax sant mm-hmm. dañuy or bañ fekk si ma mm-hmm. buñ or bàyyi ma ci incha allah su ko defee ñi ngi sant yàlla di mm-hmm. jaajëfal soxna Ndeye Marie man li muy jaay yëpp leen nekk ma ci gënal. Mm-hmm. muy gens. muy gens. waaw li ma ciy lekk nag bëriwul xam nga gensam. gins waaw xam nga ko gins. waaw gens laay wax. Ah, xam ngeen ko. ah. xam nga damaa déggul olof ndar waa olof. mooy mooy ginaar. waaw. Ah. <laughs> la ah, code la code la waaw. li mu ci lekk bëriwul. Ah. moo tax xaruma ci. bëggoo dënd man poot loos laax dënd laa ci lekk. li ci des koy bu jeexee mu boo lekkoon ginnaaw bu ko defee ñu ngi lay jaajëfal ci hmm. taxawaay bi. dégg nañ parcours bi tawarkal na hmm. yell na te rafet na. Hmm. yàlla na am continuité bu baax a baax ci barke Thierno Mouhamed alayhi salaam. koor gi daal ñu ngi ñaan yàlla may ñu ñu am jomu koor surtout ah. ñu am jomu koor. te buñ amee jëmm koor rek yàlla ñu ko yàlla nangul. amiin yaa rabbi. bu <laughs> yàlla ko fulal. bu ñu ko bu ñu ko fulalee yàlla nañ njëriñ ci ñun. waaw koor jëm rek la jom. waaw du leneen jom la jom. waaw takk maanaam maanaam xam ne yàlla moo la ko sant. keneen sant la ko. te moom moo koy fayal boppam. kon nag oral su defee yàlla yàlla dafa ñu dégg topp taw fexe tey siir jàppandal bu yaatu ci barkeem ci al Muhammad alayhi salaam yàlla def ñu jàmm ak tawféex. ñu lay jaajëfal Oustaz moom dañuy am mbégte contentement di bokk ak yow plateau Café Show macha allah li fi indi day day am solo trop su ko defee day faatu chroniqueuse Keur Ndanane bi ma bàyyi la nga tàggatoo. sama jigéen bu yaay ji moom day ree rek. sama jigéen bu day moom day xool. ñu ngi réeré noonu mu mën a tàggatoo. Eh, bu bàyyi la nga tàggatoo. Eh, sama jigéen ba. jotu waaye Oustaz mu bàyyi xëy suba woor di ñaan caaki rek soow. Ah. muy aaral noonu naan ginz noonu. yow ganaar gi yax yi sax doo ko si bàyyi. yow yax ganaar ba ànd. oustaz di ci di ci remercier aussi ci tàggatoo bi jatu mhm. jatu maa am mbégte te yow tamit dalal bokk ak yow plateau <laughs> ndax ni ma lay fajee noonu nga may fajee <laughs> Ndeye <laughs> Fatou. <laughs> ce qui se reçoit s'annonce clairement. Mm-hmm. les mots pour le dire arrivent aisément. Mm-hmm. te max yow defe naa noonu la ñuy noonu la ñuy mm-hmm. nekkante. dañuy jëli lees waxul. di ko dund di ko waxante. li ci xol rek moo am solo. ba tax na yéen téléspectateurs Ndanane TV. Uh-huh. Euh, ñu amoon mbégte contact tamit di leen présenté defe naa ne dégg ngeen Ndeye Marie li mu fi wax. elle a été très pertinente. wax nag moom dégg rek la laaj boo déggee. nga jël li ci baax nga jëfe ko mhm. li nga xam ne dafa safaanu nga tege ko noonu te damay bëgg man femme politique fu mu nekk rek ne day yëngu ci politique maanaam mu xam lan moo ko fa teg man à chaque fois je ni bëgguma débat par parloo bëgguma ngay wax di di yuuxu lii pour perturber rek sa mhm. savoir li ngay wax te ñun jigéen ñu ñoo war a jox suñu bopp valeur ñu bañ a bàyyi di riirandoo mhm. parce que bu ñuy bu ñuy riirandoo rek kenn du ñu jox suñu gëdd mais defe Euh, dina tax góor gi nga xam ne ni tey dalay dalay dalay xool ba mënul nangu parité dina tax yow nga influencé que nga mm-hmm. xëcce ko sa sa sa bopp ba tey cër bi mu la war a jox nga jox ko te loolu yëpp ñu ko am lu dul ci kaw gëstu mm-hmm. nangoo gëstu nangoo xam euh, di la jaajëfal bu baax mm-hmm. sa liggéey am na solo di jaajëfal Alassane di am mbégte bokk ak euh, imaam waaw parce que ñun ñun faatu la rek Ndeye Fatou man xam naa ne yow jàkkaarloo bi yëpp Ndeye Fatou la rek <laughs> ba tax na Ndeye Fatou ñu ngi ñu ngi lay jaajëfal yow tamit <laughs> di wax ne fii nga ñu tëye oustaz foofu la continuer du ñu ko tëye foofu rek incha allah waaw ngeen di chargé rek seen ay connexion du ñu xaar ci Kër Ndanaan TV jatu jërëjëf macha allah day ma koy waxee saa su nekk rek nee naa la man damay am mbégte saa su nekk kontaan man daal benn moo am mbégte moo am mbégte mais man nga moom mooy sama anti-stress daf <laughs> allah ko defee mu bàyyi le grand chroniqueur de sama sama préféré macha allah sama xarit sama préféré kenn du yow macha allah borom baax su ko la nga Euh, di wax ni émission bi am na solo. Mhm. di jaajëfalaat suñu jigéen parce que lii lañuy xaar si jigéen mhm. ñu taxaw seen place xam seen bopp dëggal seen bopp. Mhm. ñu jox leen seen cër. parce que comme ni mu ko waxee sànq euh, mu ngi nekk ci liggéeyam. mais mu ngi bàyyi xel bu baax baax. kër gi donc loolu nekk na lu am solo. maa ngi nuyu aussi le coordonnateur de PASTEF. Sangalkam Adama Sow aussi nekk sama xarit. parce que ñun yàlla dafa def euh, bokkuñu langue politique. mais lépp luy demale dëkk bi ci kanam rek surtout ci wàllu culture ñu ñëpp dañ ci ànd liggéey parce que politique aussi euh, def la générosité def la ouverture mm-hmm. nit ñi mën nañ baax mën nañ bañ a bokk gis-gis mm-hmm. mais ku nekk jox respecté sa morom nangul sa morom mm-hmm. donc di aussi monsieur le maire de la commune de Sangalkam foofu la bokk ak mhm. bi boo fa xoolee am naa fa ay jarbaat am naa fa ay doom ay sataba am naa ay sœur ku ci mel oh. ñoom day maye donc ñun xamante nañ mhm. donc ku yor dara rek dañuy ñaan yàlla yàlla may na ci ndam bis des na politique bu mhm. nekk nga dem politique ku gañe rek nga xam ni vraiment yow yaa gañe te Sénégal ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk bàyyi mun nañ xëccoo mais suñu paree ñun ñëpp ñooy àndaat parce que ñun ñooy daje ci xew yi ñooy daje ci ngént yi ñooy daje ci takk yi dañu am ouverture rek surtout jeunes yi mm. xam sa bopp mm. xam fi nga taxaw xam yow yaay kan xam li nga war a def lépp loo xamante ne lu ñaaw la vraiment nga jomb mm. aussi mooy ci weeru koor bi lancé un appel ci ñi nga xamante ne yàlla may na leen as tuut mm-hmm. ñu ñuy dimbalante mm-hmm. ñuy gëstu ñi nga xamante ne amuñu dara parce que weeru koor dafa nekk weeru boo xamante ne loo ci def rek suñu borom loolu koy fuloo te gis nga jëf ju baax boo koy def saa su ne jëf jooju day ñëw taxawaat sa kanam te fu nekk buñ la fayee sa jëf mm-hmm. euh, nga kontaan dafa fekk li nga jëf loolu moo baax mm-hmm. donc loolu daal la amoon damay wax jatu may ma a remercier ki ma solal jatu may ma ma remercier ki ma solal mm-hmm. uh-huh, parce que su ma ko deful mm-hmm. dama naan damay bàyyi lépp daal madame Paye maa ngi remercier bu baax mm-hmm. ci yëre bi ba ci accessoire yi te xam nga madame Paye man doomam mooy sama xarit doomam laa àndal ma ñëw mu ne ma man maa lay sañseel kon loolu dara fayu ko li may wax rek bu nit di daw di uti alal dawal nga uti nit ñi ndax nit ñi soo leen amee ñàkkuloo dara dara fay jërëjëf maman kontaan nañ ci yow ma mm-hmm. ko jox càqal moom xool kan laa koy mm. jox si soxna yi. Ah, ah, ah, jaajëfal bu baax waaw jaajëf oustaz. <laughs> di am mbégte di toog ci wetam. macha allah di leen rendez-vous prochain. am na solo am na solo su ko defee damay bàyyi Ndeye Marie. Mm-hmm. su ko defee macha yow maa ngi lay baax nee naa la am naa mbégte contentement boo a mel ni yow. ndax man damay bëgg à chaque fois les femmes battantes. te jigéen ñu yëngatu ci dara man damay am mbégte contentement mm-hmm. di leen indi fii ci Kër Ndanane TV di defal ñoom émission macha am na solo di leen wax bonne ci des. que le meilleur li ñu naan le meilleur reste à venir. Mhm. léegi su ko defee dama lay bàyyi nga jàkkaarloo caméra bi fii ku fi ñëw ci kër gi da ngay def hashtag motivation. Mhm. nga motiver ñi lay seetaan sa mhm. nga motiver leen di la bàyyi waale nga tàggatoo ak remerciement koo bëgg a remercier. voilà merci beaucoup Diatou dama lay jaajëfal yow. jaajëfal oustaz Alassane ak euh, Ndeye Fatou ñi ma bokkal plateau. ak personnel bi nekk ci Ndanane TV yëpp ak commencé ko ci directeur bi. donc di jaajëfal aussi sama borom kër moom mi ma oyofalal ba ma mun a ñëw fii ak sama doom yi maa ngi leen di nuyu donc di def hashtag li may njëkk a def mooy di wax jigéen ñi bu ñu fàttee ne euh, suñu alal di gën a for doom la donc mun nañu wuti xaalis mun nañu wuti ay sañse mun nañu wut ay kër mhm. mais li ñu doom mënal loolu yëpp ñu ko mënal <coughs> donc nañu gën a fonk doom yi te ñuy jël effort di des tuuti si kër yi di xam suñu doom yi ñooy ñan parce que am na fi yaakaar naa benn artiste bu mu fi daloon bi ko fi dara dalee si doomam mm-hmm. mu ne moom xamutoon ne doomam mel na noonu donc moo lay won ne mm-hmm. ñun dañu nekk ak suñu doom yi sax te xamuñu leen parce que taluñu leen mm-hmm. amuñu seen jot te léegi formaté nañu noo xam ne ñun foog nañ ne ku si amul xaalis boo moomal sa bopp wala Euh, loo loo xam ne di nga mën a boo bëggee jënd sañse jënd boo bëggee jënd seba jënd rek yow doonagoo nit mm-hmm. te yaakaar naa il faut nga nangoo muñ lu métti pour nga xaar lu sedd donc euh, loolu dama koy hashtag jigéen ñi beneen hashtag bi may wax mooy euh, jigéen ñi aussi nañu góorgóorlu dugg si politique buñ wax ne dafa salte parce que fii ku ne ni nga mel rek nga yóbbu fi nga neex mm-hmm. Mm-hmm. bu nit ñi saltee yow boo setee du tax ñu ne da nga ànd ak ñu salte da ngaa salte mm-hmm. ku si ne lay xoolee photo la jël sa euh, di ñaan yàlla bi deux mille vingt fi ñëwaat mois de mars président gañ réew ñu koy waajal investiture yi ñu waa sàngal kam am na moom moo dem donc di wax oustaz aussi ñu nga ma yàq lañ koy tuddee parce que ñoom ñu koy def jàppee wuñ ko yàq mais nañu xam ne aussi amul njëriñ nit da ngay seet li nga soxla nga jël ko li nga soxlawul nga denc ko wala nga wut keneen koo ko bokkal sa am na ñu ko soxla donc di leen jaajëfal di jaajëfal ñëpp vraiment di sant yàlla ci invitation bi am yaakaar ne ñu ko waxee nit ñi dinañ ko déggee noonu ak xel te mu jëriñ ñëpp neex yàlla am na solo macha allah maa ngi remercier di leen jaajëfal ñëpp suñu invité Ndeye Marie mm-hmm. yéen ñi bu baax comme ni ñu koy nekk rek kër gi moom moo fi jógee gi ki nga xam ne moom mooy PDG PDG maa ngi nuyu leen remercier bu baax baax baax di nuyu waa diaspora bi seen liggéey bu nice bi ngeen def ñu ngi gis macha allah di nuyu aussi suñu DG DG maa ngi nuyu bu baax di la ziar aussi euh, caméraman yi aussi kenn du yéen nee naa leen du ma fi toog ba jóge fi tam ma wax seen wax ndax nu ñu mel yéen la suñu kuñ boo leen defaree yéenee defar image mu rafet set ba nit ñi duñu mën a seetaan ñu ngi leen di jaajëfal bu baax su ko defee suñu partenaire yi lay ñëwaat tey ku ci mel ni Stafrica Interim muy euh, entreprise de prestation service nekk fii ci Tëngéej ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ndax ñoom ñooy Euh, partenaire u kër gi waa Ndaanaan shop aussi comme ni ma leen ko waxee rek Ndaanaan shop nee leen lépp lu ci abima sañse ñu ngi fii ci ginnaaw pharmacie aspect daw mm. dimbalante mm. weeru koor dafa metti nañ leen am yërmande mm. weeru koor dafa metti am na ñoo xamante ne amaana ñu ngi toog seen kër yi wallahi azim instant bi ñu ngi xalaat lan lañ war a la woon amuñu ko ñi xam ne yàlla da may yor mm-hmm. gestu leen ñi amul mm-hmm. sa dëkkandoo boo dëkkee moom geesul sa dëkkandoo boo amee sa dara nga ne ko am jàpp ci nga ndogoo parce que tey jii yow mi jël sa ndogu di xeeñal say ginaar di xeeñal say yàpp mm-hmm. mm-hmm. am na koo xam ne tey ji wallaay azim kenn tax ñu togg sax nañ leen geesu <laughs> suñu dëkkandoo yi nañ leen mm-hmm. geesu leen ñi nga xam ne yow ñu yor man dal la leen ñaan ndax dañ ni lépp loo def ci weeru koor comme ni ma ci Alassane waxee suñu borom di leen koy fulal donc ñi amul deleen gé ñi am di moins deleen geesu ñu amul weeru koor dafa metti te ñàkk dafa metti kon nag tey jii li may wax rek bu ma fi jógee li may wax rek balaa ma fi jógee mooy séntu leen gestu leen ñi nga xam ne yoruñu mm-hmm. wallahi azim man saa moo toogee sama xel ci ñoom lay dem mooy yoruñu gëstu leen loolu am na solo su ko defee ñu leen di jaajëfal di leen wax ba beneen incha allah